aja Pape Maron eh, vite fait bien fait Pape Maron jël na ko Papa Wadia daanoogul de Pape Maron jël na tànk Wadia daan na ko Pape Maron daan na ko jeex na leer na waaw Pape Maron daan na Wadia ndeysaan koni l'avancée de Diohine borom sandi game Camera Gigi.